magasin Auchan bi biñ koy biñ koy indi fii lu ne lañ ci daj coow nañ ci xuloon nañ ci waxtaan nañ ci dem nañu ba mujj bu ñu madame Seyni bu li Mbàkke bi si nekk sama gannaaw avec le maire ñoo def avec les populations def benn médiation ñu ne bon d'accord mais les autres installations yi nga xam ni yii war nañ ko fi def ni ñu jël disposition pour sàmm ko ak ak ni muy fonctionner pour le bien des populations pour que population mën si gis seen bopp te waxoon nañ ni waxoon nañ ni Auchan bi bu ubbee nun suñu doom yi suñu jarbaat yi fi la ñuy liggéey amul man en tant que délégué ma wax leen ne tey amul kenn ku fi liggéey ku dëkk Sacré-Cœur yana pas loolu lépp ay ay ay ndigale la au woon lanu mairie boo waxoon ak loolu waa lii daal asalaamaaleykum wa rahmatullah entretien di seen émission boo xamante nag Tawfekh Production moo leen ko indil di dalal ay kàngam yoo xamante nag ñoo xam ñu nekk ci làngu politique yi wala ci wàllum koom-koom bi wala éducation soxol na actualité réew mi ak lépp lu jëm ci wàllum rek li suqali réew mi loole nag mu nekk loo xamante ni day am ci seen Tawfekh Production mu nekk émission boo xam ne képp ku mu yitteel mën nga woote ci numéro téléphone yi li 77 792 50 43 wala boog nga jël numéro téléphone bi li 77 251 04 05 mbokk yi émission baa ngi képp ku mu itteel nag bul ko wute te mbokki internet yi bu leen ko tàddee benn yoon ndax lépp lu jëm ci wàllum décryptage jàngal leen o lépp lu soxal actualité réew mi dañ ko ci waxtaane ci biir émission bi direct entretien ci Tawfekh Production